salaamaaleykum euh, euh, yéen waa euh, yéen presse bi télévision yi presse en ligne bi journaux yi tout ça maa ngi leen ñëpp leen bëggee leen siyaar di leen wax na yéen mën leen ñàkk ci ñun waaye ñu nit ñoo ñàkk ci yéen donc dañu bokku teen bi ñooy laxas ñooy laxasay ko comme ñu koy waxee leen wax na la nag xam naa ni dama je préfère ma xaar nga naan loolu moom fii di dama jàpp ne booy xool li ma ko def bariwul wala bu fekkee nag en ce qui me concerne maa ngi koy doog a def man loo xam ne amul ci sama groupe ci sama groupe maa ngi koy doog def nii loolu nag di nuyu nag aussi ñoo fekk ñëpp góor jigéen mag ndaw di nuyu nag euh, sama waa ji wax ne moom féete gauche naan ko jëriñ ne maam Cheikh. borom label Djily Ngoné production DN Prod Planning di nuyu PDG di nuyu nag communicateur ale ak ñëpp ñi fi nekk leen wax na leen euh, ki liggéeykat la jàmbaar la ku neex a liggéey la ku neex a àndal la ku am compréhension la ku ku baax la ni ku baaxee la ku bëgg liggéey aussi ku yaru il est génial il extraordinaire. Moi, je l'aime bien parce qu'il m'aime bien. même trop même. c'est yàgg naa jàpp moom bi may jàpp moom bi muy jàpp léegi la gën a fës rek mais yàgg na maa jàppale sur mes débuts dañu def alalam te boobu lépp amut boobu lii xaaju bu la am xaw moom sax na dina am ba ñuy war a collaborer pour liggéey jàppale na daal ci à travers vous ci médias yi ci télévision yi presse en ligne ni ñu ko baaxee na nii ku neex a liggéey ku neex àndal ku yaru ku ay mbokkam gërëm nag donc gars yi def naa loolu la woon ci nuyoo bi santaat naa leen nag gërëm naa leen jërë ngeen jëf ah yow première question suma juum parce que daf ko enchaîné tellement yaa ngi doon wax ci euh, li tax ñu génn ko bu indi génn ko ci biir pour ci biti nga teg ci ñan ñoo nekk sama ginnaaw ah d'accord def naa loolu Ah, d'accord léegi nag li waral loolu man à ma grande surprise xam nga man kese nekkuma ci euh, euh, di liggéey dafa am ñu nekk sama ginnaaw effectivement ma a le label Diery Ngoné y a le manager qui vient d'arriver Tidiane nga xam ne Tidiane Dia donc y a aussi mon staff boo xam ne fi la ko Diery Ngoné Diery Ngoné fekk am na ñu fi nekk tu vois. su ma su ma bëggee lim ma matal mun naa fàtte bon man dama jékki-jékki d'après ñu may amee information yi tey jóge ci Diéry Ngoné Lo Diéry Ngoné Keba wala Keba Diéry Ngoné di nuyu baax nag ni ku baax koo xam ne daf ma yàgg a jàppale loolu moom tamit boobu yëpp amul magay sëy magay sëy moom aw donc euh, daf ma yàgg jàppale loolu nag te daf ma ko waxoon biñ dajee di bi Pathé mi nga xam ne moom tamit wax dëgg xam ne moom aussi moom waxuma la man ak maam Cheikh rek am day sawar ci ay ne sama ginnaaw benn ñee ko soo fa nekkee kii dafay bari mais xam naa daal dégg naa il y a quinze jours je pense au ñoom ñi nga xam ne ñoo côté billetterie ñoom ñi nga xam ne ñoo xam jour su mu toll. ñoo ne ñoom woo téléphone ñoom ñoom nag dañoo benn problème mooy boo moytuwul ci biti lañ jëm mooy ko ci biti fan. non parce que demande bi dafa bari macha allah alhamdulilah loolu moom dañ koy sant suñu borom di sant jaam yàlla yi di wax alhamdulilah borom du dëgg parce que une première une première euh, ci koo xam ne naa ci yegg tey mooy génn mosoo génn album. Euh, single yi sax bariwul donc loolu c' est pas facile c' est pas donné aussi à n'importe qui maa ngi ciy jégul bu fekkee ne parce que tamit il n' est ah, donc euh, yow nga ko génne ci biti bi élevé de telle sorte à quinze jours de l' ou treize demande bi élevée à ce point que ñi ci biir parce que grand théâtre il paraît dafa ay changement léegi ki fi mën a tëgg ñoom sport yi ñoom ñoo ciy nekk parce que seen sécurité fii dafa bëri ay yàqu-yàqu yu mën a am bu fekkee da nga jël plus nombre bi nga xam ne moom nga moom nga am droit ci biir léegi loolu yëpp amatul nombre bi rek mooy dugg léegi nag Zeyna bu ñu yàlla dimbalee ba yàlla dogal événement bi des lu bari ay semaine demande bi élèves yi dafa sos que ne ñi nga xam ne ñoo war a nekk ci biir ñi bëgg a ñëw te amuñu biir ñëw ko ëpp fuuf. léegi doo ko génnee pour ñu ñeneen ñi am ci accès def naa loolu question loolu loolu léegi leer na demande bi moo élevé de telle sorte que ne ñi ñi ci biir ñi ci biti ñi ca bëgg a ñëw ñëw ëpp fuuf loolu ñu génn ko mais nag tontu naa leen loolu leer deuxième bi mu nga ne moom mooy bu ñu xaar duo avec moo nga ne maanaam ci événement bi la famille Seck farama ren la waaw hmm? n'est-ce pas ci wéy du ñu farama ren kan moo aye ku woote di Farmané kon kay Farmané ñëpp ci lañ bokk duo moom mën na nekk ku mu mën doon ak benn Seck coono nekkatu fi Assane Ndiaye Ousmane Ousmane Seck Waly Seck Bambali Seck et Mandiaye Seck loolu moom pourquoi pas ak yeneen yeneen sax tey événement bi événement Farmané la Farmané ñëpp ci xaj loolu moo indi ñu gis xam ne du sax jullit chrétien la ne Faramareen pël Fuuta Faramareen donc olof ak mu doon Joola séeréer soo see bambara tout ça pël Fuuta bi ah loolu kay incha allah te xam nga dëkk bi macha allah léegi dafa bëri Faramareen ah léegi tey ki sopp Mapenda ki sopp Assane Ndiaye ki sopp Kéba ki sopp Ousmane Waly Mañaay ma benn dëgg Ambaay dëgg par exemple. ak yi jékki-jékki yàlla def ko sa xel ci nga sa xel dem ci coono donc euh, waxuma laaj ko lii parce que ñun tey bu ñu wayee gannaaw yàlla yonent bi ñun ñëpp bu coono seeg nekkoon waykat ñun ñëpp boobu kenn nekk waykat parce que ñemoo ñoon paa bi te paa bi benn yoon doon ngay def tu vois dégg histoire coon avant mu ñu koy libéré pour mu way rek ñu daj na ko donc bu ko nekk woon ñun xam ne duñ mos a way xam naa même donc euh, événement ou sans événement euh, mën nga doon rek dégg ñu ñu koy waxtaane moom com wala nga romb dégg musique am ci dal donc kon com euh, ñu ko fàtte te nee naa laa cooli cooli yàlla ñaan aussi suñu ñaari xam ne moom bëggoon naa ko jàkkaarloo moom te jotuma am chance à part téléphone mu yaay ma ngay sëy ku ma war a jaay am ko yàlla xalaat dina fi dem seen tamit donc am bu euh, a am ci kaw seen biir ak faramaay kon dootul am sens loolu nga for ci wéewu foofu nga ci yem dangaa for ci wéewu foofu nga yem ah bien sûr ah, ah bien sûr ak lan déjà premier bi échappé bu fekkee jàpp nee na premier album. album la dégg muy wax album ba léegi. waaw nee na tamit est-ce que doo toog ba ci ma regretté ma regretté pour ñàkk a yéex génn album loolu nga par rapport ak temps bi. <laughs> regret moom boo bëggee dégg rek yàlla bu baax ci conseil bi li nga wax. pourquoi ma amee parce que àll boobu moo dund kon man maa ngi mel ni ku jëndee ay àll boobu kon bu dee kon pourquoi ma amee léegi nit ki da ngay sabal am ambition di bëgg ko waral dañ yàgg ko bëgg fan laaj ko laajal laajal bañ na ñuy énervé. ñu lekk ba tey nest mais amuñu ci rek déjà événement bi ak euh, c'était prévu pour accompagner de nouveau mais pour le moment surtout encore une fois une première album bi wóor nañu diggante bi ci nekk ak levay bu sotti pourtant mënuñu ko tax tafeere génn ko mais est-ce que dina baax gën a defar as gën a baax léegi nag comme wóor na ñu ci pare moo tax ñu teg ko mais mi ngi am cours incha allah ñu jógee ci lii dañ ciy jub jéem ko finir avancé nag mais diggante bi ci pare ñu ngi defee ñu calcul xoolaat diagnostic xam na du pare fii du pare ñu tegal ko boobu est ce que amul ko si mooy jaay est ce que amul amul ko si ko yaa ngi wax sànq ne amul waxut yaa ngi wax léegi ko question bi nga wax ci jëriñ ko ne yaa ngi album waxatul n'est-ce pas muy koy may n'est-ce pas muy chaîne yeneen euh, xam ne ñu ngi ci ma di defal musique defal fi musique yu bare bare bare bare ay album album ak ay ndaanaan buñ génn ñoo ma ne c'est devant Sénégal yaa ngi gis plateforme yi ñoo ma ne buñ génnee album dañuy may léegi pour nga xaw a jaay moom il faut ma yëngu rek mu def si def nekk ci camion yi dem ci kër porte porte à porte déjà comme c'est compliqué du ñoo mën a def génn album man xaw ma ko man bu ma ko defee donc ci loolu moom da ma garanti maanaam question boobu ça dépend nag mais man rus naa ko def. album tey ba nekk ñoo xam ne benn morceau si c'était en Europe ou États-Unis Angleterre et cetera benn morceau bu dox benn kenn am ci milliardaire benn morceau bu dox ci milliardaire da nga dégg kooku xam nga understand dégg nga gëm na saa yi mu làkk mu làkk moom. nag gëm na saa ah, ak ñeneen ñeneen benn artiste ci fii ci Amérique rek morceau benn bu génn tuye milliardaire fii génne douze morceau yëpp tox yëpp tox yëpp neex yooyu moom cinq cent bi la moom bu la kenn jàppale wu sa fan say fan dem jënd jënd ko balaa balaa ca gars yi ñëpp amoo cinq cent mille ak is jënd métier fay bi ñu koy tey bi toog bi temps bi patience bi musicien yi war a fay génne xalaat c' est dommage au Sénégal léegi wala d'accord ah ne sees que pour waaw ñoom je sais mooy kàggante mooy xam nañ ne mooy kàggante ci artiste bi mais man tey loolu man képp la non ma sëñ bi jàpp la live la koy tànn rek quest que c'est loolu la jox lu live du macha allah parce que bu dul kenn mbay kat moom na laa def li ma am bay dégg yàlla moo ko def ah gis nga am na artiste si moom jot jot jotoo euh, liggéey je pense que ñu ngi ci nawet ba léegi parce que man avant mi naa sonn lool dëgg yàlla topp nag ci presque ca Covid bi bi jeexee ba ñi mu àndal leen kii mën na ma mën nga ma yu manqué avant mi jot ci te du tax kenn am léegi yàgg bëgg donc loolu lay confirmé mais sérieusement gañeekut wallaay la parce que li muy faral aussi ñëw li ci di ko ci gañe da koy delluwaat ci équipe bi la koy jox. sama manager mën na ko confirmé loolu laa doon confirmé ay xam ne il faut ñu jàppale ko ci euh, projet yi. et que yokk doole ba pare nag gën ko encouragé il est brave ah. par exemple jërëjëf. bon may yëngu tuuti rek am foofu déjà événement wu la bi ñu nekk di préparé ci subaana bi c'est beaucoup moins ci ñëw parce que néew la ñu tuuti leen mais ñu di préparé un événement de taille ci question son lumière spectacle répétition yi ñu nekk c'est les moyens, c'est l'argent. il est encouragé de grâce sponsor yi ñëw leen jàpp ci ñuy jàppale culture sénégalaise jàppale Impro Kebs tous les artistes ñu dem tous les artistes qui sont là les promoteurs les sont fatigués ils sont fatigués parce que seen ay moyens la ñuy demee. les spectacles yi des fois li ñu ciy def sax en retour doo c'est pour plaisir la tey maam Cheikh bu ñu waxtaanee moom ñoom mel parce que loolu la mu ne c'est un plaisir pour may def yi kon c'est sa passion d'abord. jaajëf maam Cheikh. jërëjëf Pape. qui peut faire Kéba Seck comme des artistes nigériens. Hmm. comme des artistes yi nga xam ne nekk nañ à l'extérieur. beneen bi mooy maam Cheikh est-ce que d'une manière stratégique bàyyi woon ngeen xel seen artiste. parce que pour man est-ce que xeeboo leen ko woon ba jël saalum 1813 ba ngeen dem ba demande bi ëpp offre bi ba ngeen mujj koo génn est-ce que di manière stratégique bàyyi ngeen xel loolu rax bu dee da nga rek sama xel dem gis nañu des artistes internationaux yu bëri jaareem fi indi du ma ne mosoo jël des artistes locales mais li muy am néew donc à part raxu di je n'ose je n'ose pas dire valoriser parce que boobaa damay damay dénigrer mais ngeen jox leen importance à l'intérieur de notre pays et pourquoi pas man ñi ngay jëlee ñooñu indi leen fii nga jëlee ñuy yóbbu leen foofu merci beaucoup. jërëjëf Big Taf daf laa ne question bu njëkk maa ko xam naa bu baax fi nga ma tontoo ak fan ma ko posé bi may wax sànq juste que ne waxit la mais ku si nekk da ngay ñaan ñaan loolu aussi quoi. c'est parfaitement raison et loolu incha allah ci liggéey bi la bokk en force il faut ñu def ko bu ñaare loolu lay dem masa bu dafa dëgër incha allah tey ni nga ko waxee mi ngi ci bopp kii avant kii mi ngi ci bopp kii jëm li baax nga xam ne mooy yaa ko sànq ñu ngi fi gis nigérien congolais franc xaw ma ñëpp ñoom ñëpp moom mooy fi te li mu leen prix leen ci kon moom tamit li daal kii dafa daal passion amul volonté et bientôt incha allah li ngay wax yëpp ñu ngi ñaanal ak suñu kanam dañ ko def ci euh, je pense que dañoo posé tout à l'heure comme pour Kéba euh, samay idée. yi nga xam ne mu ko am pour moom suñ ko ko waxee dana am yow dana dëgg la. dana am doo tee. waaw li wax mooy waaw. parce xam naa ko. soo gisul moom day des suñu bopp ànd ak moom liggéey moom. dama ko suivre pendant dix ah. xam nga. xam boo xam ne moom sax xamu ko. dëgg la. moo tax sama par surprise dañuy wax immédiatement man taw ak ménager ñëw ci administratif bi daal daal waxtaan ak ñoom ñoom ñu xam ne mais yéen si fa ngeen teewee ma toog nopp rek manager bi naan moom kii de li que xam naa ko mu war ci boppam sax nga xam ne dafa teey dafa calme moom Keba la ñu xaar lay doxee man nag je suis obligé parfois sax di forcer mm. moom noonu lay doxee donc xeebu ñu ko nag xam naa ne maa ndaw quoi. yaa ngi dégg gars yi ñu wax. bu ñu nga toll. fan. xamoo ko. lu ma ci xam. Binta ah. merci. salaamaaleykum. am naa mbégte la toog fii ndax euh, Kéba li may wax souvent rek la famille Seck moom. Ah. c'est la loolu noonu ci coon sekk lu tàggu ni Assane Ndiaye hmm. Wally Seck Mapenda Seck Mapenda je connais ça fait vingt-trois ans je faisais la radio à l'époque quatre-vingt-dix-neuf laa xam Mapenda dama daan animé lu soir Mapenda day ñuy jël sima à la radio yóbbu ñu dem dibi lekk lu suur ñu déposé la xam dafa yàgg quatre-vingt-dix-neuf alors euh, dafa am benn rappel bu ndaw bu mu bëgg a def ci Sénégalais yi ndaxte je pense que ñu big taf ni nga koy laajee noonu la ko yéen journaliste di ko xalaatee ndax xëy na période bi may yëngu ci musique j'étais très jeune je fais très jeune nag mais quand même sama carrière ba may tàmbal musique mën naa ne am parce que ba ma nekkee jeune à l'âge de nekk DJ di animé euh, maa ngi wax naan suñu Coumba Gawlo mais man damay xam Coumba Gawlo Seck c'était son sigle seytaane sa maman vulnérable bi mu di raaxul fa ngeen jàppale Coumba Gawlo Seck kon dafa yàgg yàlla aussi def na euh, ba muy jël artiste sénégal yi di yóbbu France c'est en 2008 te Abdou Guité Seck la tàmbali su may wax souvent sénégalais yi ne leen euh, may bañ lim je je n'aime parce que day mel ni je suis prétentieux tu vois moo tax souvent di wax Euh, mais am naa la lu ma def ci musique sénégalaise ndax li gën a yomb mooy boo may cité artiste dama naan génneel Youssou Ndour ak Baaba Maal sinon j'ai fait tous les artistes sénégalais en France xam nga kon euh, li ngeen di gis ni bees muy jël ay artistes internationaux bi ñu Sénégal mais ba may tàmbali bu yóbbu artistes yi dafa yàgg 2008 ba 2017 2017 ba 2023 ak Viviane à l'Olympia kon dafa yàgg ba may jël euh, artistes yi yóbbu ay Pape Diouf. Pape Diouf ba ma ko yóbbu c'était pas en live c'était en playback. Papa Ndiaye Thiopet en playback Alioune en playback. le premier concert de Pape Diouf et la génération consciente suñu juróom-maag bu yóbbu Paris. donc ay anecdotes yu bëri yoo xam ne mën naa ko kon dafa am lenn lu mu def culture sénégalaise souvent aussi les gens dañu confondre dañu naan waaye vous ramenez des artistes internationaux avec sponsors alors que les filles artistes locaux duñ parce que les gens qui ramènent les artistes internationaux c'est les sénégalais pour man c'est la musique en général kii jël artiste yóbbu ak kii jël fii liggéey but bi benn la c'est le Sénégal qui gagne même ñun nga xam ne dañ leen di jëlee fële ci indi on a du mal c'est très difficile li may wax mooy sponsors yi doivent soutenir la culture doivent aider la musique que ce soit euh, les artistes locaux que ce soit le promoteur qui est sénégalais qui ramène les artistes internationaux donc su ma leen compte foofu euh, Big Taf yàgg naa di di yóbbu am na ñu xam ne seen première fois ci sama loxo la hmm. ba ci sama xarit. waaw Kéba Seck. yóbbu naa ko France première fois c'est en Québec. deuxième Titan Titan deuxième bi ak Goudon. tu vois di ko gis ngeen di gis maa ko ñu ko yóbbu si di jóg maa ko ñu ko yóbbu France et cetera et cetera Assane Dia je l'ai fait pendant des années des années. Viviane je l'ai fait bi mooy deuxième fois mu je l'ai fait minimum quatre fois à Paris ba may jël Thione Seck di ko yóbbu boobu waree des exemples et des exemples dont je peux donner te loolu dama di voyager di dem France di dem Italie di dem Espagne di dem un peu partout kon loolu nit bu koy def ba pare bàyyi France ñun ne war naa mën a Sénégal kon combat bi donc euh, euh faut que les gens minimisent ça et puis souvent dañ ma pourquoi tu n'organises pas les artistes locaux pourquoi doo teg lii moo lii moo parce que dama naan mënuma jël toute la place est-ce que yéen a ngi imaginer je prends les artistes internationaux je les ramène dans mon pays je prends Kéba Seck mu dëkk Mame Cheikh kan lay dëkk après kenn ak kenn ki nga xam ne ne kan lay dëkk si je veux prendre toute la place dama ne man maa ngi jéem ci sama wàll Mame Cheikh mu ngi jéem ci beneen promoteur mu ngi jéem ci artiste bi ñu yor kon il faut ku nekk am leen loo ko bàyyi je ne peux pas et je peux si je voulais mais dama ne non naa bàyyi sama gars yi aussi ñi nekk fii mën a am seen place ci musique sénégalaise bi loolu rek moo tax ñuy jël ak Sénégal yu teg ci man fii Sénégal moo gën a yomb ci man mais dama ne chaque chose a son temps et puis ku nekk aussi bàyyi ko mu def lu mu bëgg def mais li tax ma ñëw fii Kéba c' est un frère dégg naa question bi ngeen ko posé lan moo tax maam Cheikh xanaa daf ko xeet moo tax ñu bugg ko esplanade bi c' est un beau choix le fait de vouloir faire déjà à l' non à la salle parce que Kéba joué wul esplanade Kéba génnewul album Kéba joué wul dans une grande salle pour man il a confirmé ñu génne ci benn salle bi def mille une semaine avant ñu ne bii jeex na. deux jours loolu deux jours. <laughs> deux jours tu vois donc loolu déjà ça montre que ni Kéba sénégalais ñu ko bëgg Kéba dafa ràmb ak fii c'est l'artiste le plus modeste na benn bu nekk star Kéba vraiment gis ak caraxam bu mu dox nii parce que loolu la yàlla def ci moom. dafa mbapat mu jaar jaar ci coon jaar ci. asalaamaaleykum jaar ci Ousseyn Salam xam nga kooku moo tax moom yàlla moo ko jox li mu am tey nañ ko ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér ndax il a beaucoup de choses à faire pour la musique sénégalaise. jërëjëf ah. mais peut être ne la léegi mooy boo ko tàmbalee au début actuellement li mu investir il faut que investir au euh, début. pour mu jëm amuñ ko ah. ok. donc kàmb amoon na donc liggéey bi mooy demee noonu parfois di nga liggéey li euh, nga bëgg a liggéey ku ko respecté wu nga jéem a mais actuellement nii li ma investir même pas quelques mois ba may mais dafa am yoon liggéey soo ñëwee aussi il faut le temps nga adapté wu dañuy xam yaay parce que nit rek nga tëll rek ne xamuñu kan la xaw ma tamit li nga bu ñëwee si foog nga nangu ko loolu la war rek mais y' a pas de souci artiste rek ñi nga tey dañu war a gën a aay dinañ gën a taxaw ko liggéey bi loolu am benn problème li xewal na sama liggéey teg jàpp taxaw c'est que xam ko fa artiste day toog ànd ak kenn di liggéey liggéey ay nit di ko sol si noppam di wax di wax ba dañuy wër seen bopp contraire problème mooy suma problème ak càmm c'est juste que. dañuy xeex wala animateur jël leen xeexee ay combat yoo xam ne si inutile de le faire pour que xam parce que waykat yu bëri jàng da leen di dugal si ay guédinages yoo xam ne. man j'ai une entreprise dama am benn ku ko bëgg soo si duggee rek man ma propre personne ça m'importe xam nga ça m'importe loolu du problème soo duggee si jëriñoo li si wax loo xam ne du dëgg ah dinaa wax ne li ngay wax nii rectifier ko. loolu la woon rek te moom ñu laa compris après daa euh, ngi jàpp benn problème ak na nag dañ koy joxaat chance te incha allah dañuy ñëwaat ci label bi parce que ñun on est là pour ça ak nekk du mu mën a mel ak relation fu mu demee dañ ko jàpp teg ko loxo loolu trop c'est un frère merci beaucoup. jërëjëf DG loolu exclusivité léegi nga xam mooy sant la. sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy wér sant bu baax sant bu baax sant suñu bunt ci kër Serigne Touba muy Serigne Mbacke Madina waaye Serigne Cheikh Bamba di Mbacke ñuy ñëpp kilifa diine yëpp kilifa aada yëpp di jox ñëpp seen yéenuwaay ak seen wàcce ci tey fii ci sama doom sama rak muy suñu jaar ima muy alaaji Kër Assane di wax ni sa question euh, suñu papa yi dañu yar ak suñu yaay ñun xamul wane yar defu wala wane leneen dañu xam eh, rakk topp mag mag yërëmi rakk loolu la ñun loolu lañu xam donc suñu bàyyi yar ñu ci diine ci lislaam ci respect moom xam ku la mag bàyyi nga def bàyyi yaay nga def yaay ainsi donc ñun loolu la ñu xam ba nga xam ne ñun papa yi comme ni ñu ko waxee dañoo sax ruusante dañoo bëggante joxante respect ba ruusante loolu nag suñu waajur ñu ngi loolu la ñu xam ndax xale yi nag bon ay xale lañ rek xam nga euh, xale moom bu toll ci xale xale la ku nekk jaar na mais bon. Euh, loolu je crois que euh, laaj nañ ko cinquante millions de fois mais dama ne que euh, famille bu nekk ci àdduna bi pour service yeeg pour autorité yeeg kër gu nekk am nga problème yaa xam problème bi naka la mel. li ay oh. malentendus yi ndaw la ndaw la rek ay xale yu bëri on va leur faire revenir à la raison et y a pas de problème incha allah. kii moom. voilà li may wax rek. su ma rakk la. moom la sama xarit la loolu yàlla dogal ñëpp laa xaritoon rek ñëpp man sama famille ñëpp ma bëgg ki gën a mag ba ki gën a ndaw macha allah ñëpp ma bëgg ñëpp ma respecté te taxalu leen dara nag mais cër la rek bu ñu ma jox. Ah. mais kii moom ah, mooy caatu yaay nawee ah. donc euh, di xale bu baax xam nga. li may wax rek euh, boo ràmmee ba wér ay picc ay picc dootu la saf parce que <laughs> voilà Ramaphosa jaar na fi Ouaga jaar na fi Kouassa Kouassa jaar na fi lépp jaar na fi donc yooyu yëpp lañuy ñu fekk macha allah donc li te ñor ñu ci àdduna mooy le respect mm-hmm. mooy yëg-yëg mooy cër loolu moo ñu parce yàlla suñu borom bàyyi ñu mi ngi ñuy teral mi ngi ñuy suturaal macha allah taxawaalu wuñu ñaani wuñu wayaani wuñu ñi ngi suñu coin suñu borom bi ñu suturaal ñu yor suñu bopp yor suñu njaboot macha allah donc cër la rek nga xam ne tey jii man am naa ma war def yi am bari yu ma def salaam yi ngi Amérique dina am nga def. mais kii bu doon dañ may fay ay milliards te moom mu am dara dama fa naan ñëpp loolu ñëw parce que ci moom la bu meloon leneen ñoom xam na sama jikko man man du ko liggéey parce que man boole ma dara mais cër la bu mu joxe ba bu sëñ bii man billet bi may indi man moo ko jënd am naa ko macha allah. mu jënd biir bi oto bi may dawal tamit bi ma ñëw moom moo ma ko jox fa ma nekk moo koy fay lépp moo ko lijjanti moo génn ko ni donc muy euh, koo kii nag man dama koo yàq ñu am jaar-jaar yoo xam ne tey bu toogee fii tey ba presque bi di ko wër àddina di ko wër àddina di ko lijjanti ñu naan keebaa moo xew dañ koy sant yàlla parce que bi mu njëkkee ñëw ci man pour woy dama ko dàq fii nii dama ko dàq dama ko non doo fi woy boobu ma waxtaanoon ak Omar Gueye Sène boobu moo nekk capitaine bu Paris Saint-Germain ma ànd moom miin ba kër Omar Gueye Sène ba Omar Gueye Sène war koy jël pour yóbbu ko France parce que dafa mënoon a football teewal par ñaari la wax ñaari yëpp eh? donc Omar Gueye war ko di lax-laxal lim lim lim bon pour gàttal ba ñoo ci ma dàq ko mu dem ca coow coow dàq léegi bañ ko dàqee ndeysaan salaam jàll mais moo bëri du gëm ko nag jël ko teg ko ci wetam. ne lan wax wax leen lan. lu leen wax man salaam. kan salaam. ok lu mu wax lu wax yéen. Ah, bi ngeen ko dàqee bi ngeen ma dàqee. Ah. salaam bi mu récupéré lu mu wax. ah la mu wax <laughs> dinaa ko def woykat. ah waa dem ñu dinaa ko def woykat. walaay azim ah. mu ngi nii toog. daal di salaam waay. waaw dinaa ko def woykat. walaay azim. te na ma ko woon noonu la tamit jël na ko teg ci. gurgam boobu la ko suba la ñuy def tabaar teg ko ci wetam dañ ko fal ko chef d'orchestre Kéba mu ngi mooy fay ay musiciens yi xaalis bi ci loxoom lay jaar. di ko mënaat si. donc tout ça ginnaaw bi ñu yàlla lépp lépp lépp c'est grâce à nañu bég nañu macha allah. Euh, tey moom xol dafa fees lool. mu sax du yëkkati kàddu waaye la ko jar moo ko jar maa ngi njëkkal sama nuyoo ci ma benn sekk mi nga xam ne moo fi suñu kilifa man tamit lu ma mel moom la ndax sama ndey ja ak sama maam dañ maa yëkkati woon teg ma ci loxo ma benn li ma képp ko ci presse bi ci showbiz bi am na lu bëri lu mu def ci man moo waral sama diggante ak jëmm ji di nuyu le grand promoteur raxo di ko wax. rax-rax ba mu wàññee production ca la artiste gëj bitim réew. un gars très sincère et très muy ku baax muy ku sérieux. un gars très sympathique. Euh, kii di li yàlla def sama diggante artiste yu bëri ñu jaar sama loxo du ma ko dammoo ndax yàlla la yàlla parce que c'est pas évident un taasukat comme moi di defar ay waykat c'est pas évident il y a pas de pare mu nekk un cas très exceptionnel ci man dama doon wax ne ko ñii famille bi bu exceptionnel la ci showbiz Sénégal bi ndax famille boo xam ne ay waykat lan doo ci gis ku naan kuy wax wax bu débordé ils sont tellement bien seen papa alkaati la woon alkaati bu weex xat bu métti ñu am yar bu méttee métti ku ci nekk waxtu julli jotee kenn la wax dëgg julli ñoom ñëpp ma dem ba xamante seen yaay seen yaay def ma comme doom tous les lundis on se retrouvait chez eux lundi parce que benn orchestre daaw woon tëgg lundi ci Sénégal man moo am fit mi rek maa doon tëgg lundi après yaayam. dénk ma ko ma sama càkk bi maa la ko dénk mm-hmm. Keba nekk ci man nekk sama manager di ma aw bëgg ma su ma fanaan kër su ma yow yaay def naa ma lan nga bëgg a man ko ceeb bu weex ba am suul ak bëgg ci moo ma koy toggal ci loxo boppam lu mm-hmm. mu nekkee ci man nekk un gars très sérieux boobu j'avais même pas le temps dama doon joué du lundi au lundi mm-hmm. barke sëriñ sax mais mu may xelal di ma dimbali te vraiment j'en avais besoin et puis temps boobu coow lu bëri na coow lu bëri na trop mm-hmm. mais mu ñu dem ba yàlla def li mu def ma kontaan ci trop di gërëm yàlla suñu borom di gërëm sëriñ Saliou Mbacké sama sangama Kéba mm-hmm. ba tey sama assurance oto moo gëj naa xam dépense kër ñaata la samay doom ordonnance ke may fay dama fa am cachet mu ñëw ak ma ñàkk ñëw ma nekk bitim réew mais il n'est pas obligé de le faire il n'est pas obligé am na moom ay ay ay ay am na am mais Keba il fait tout pour man mosuma gis nit koo xam ne amee na kóllëre comme Kéba Seck te bu fekkoon sax tey màgget laa wala bàyyi naa nekk un retraité on peut dire mais man je suis pas dans le ba tey li may toog Sénégal ñu bëri sax def na bàyyi naa waay li may toog Sénégal da koy compté maa nga Europe maa nga Amérique maa nga fu ne dans le monde entier je suis pas dans le ku xool sama lex yooyu rek sama biir bi xam ne je ne suis pas <laughs> mais xool loolu. Kéba saa yu gisee rek defe na ni mën na ko defal teraanga démb lañ ko jox fii xaalis bu baree baree bare da ko yëkkati teg sama loxo mais donc man kii fan laa jëm ak moom moo tax lu ma jàpp ma bàyyi ko arrêté foofu lépp exit ndax événement bi événement bi nag dama doy waar parce que man bor bi may fay Kéba incha allah sax laa koy fay barke sëriñ Sall <laughs> jërëjëf ci saa yi ak ci baat ngeen di. ki tànn sa mbaq robat ci dégg ceeb bi rek ceeb. su waay yàlla. xam nga loolu dafa bëri jiwali nañu pare xale yu jigéen nañu pare fecckat yi nañu pare. Eh? waykat yi nañu pare ku bëgg a xew ba toujours ñëwal ku bëgg nag fay toujours pour wax naa leen de parce que bu mag bay wax de événement bi mooy événement de l'année te booy bi. carnet de salaam. booy bi mu baaxoon artiste boole dafa bëri. sa mag hmm. wax ma du Sénégal du monde entier. la Thione amoon am na ko. kuy sa mag moom Penda Seck. woy ba nii xale bu fiy jàng woy ci ay woyam ngay woy ba tey ba ci jàng ko ci diine yi sax ñiy jàng diine dañuy jël ay œuvre di ko hmm. kuy sa mag Ousmane Seck. yow da nga wax da ngay woy ba dee. Assane baax nga. gore nga ku yiw nga. tu intelligent ba pare da nga généreux. sa ay xaritu daaw ba tey ñooy say xarit. maa ngi lay ñaan ndéem am naa dara ci ñaanu mbay ci ñaanu Serigne Sall yàlla na ko si looy yàlla na yàlla dugal sa fan. amiin jox la jàmm ci barke Serigne Sall ak ñafa teew. jërëjëf Kelle. jërëjëf salaam